tax nga sa xëccu eh, ndax ka nga xam ne sa doom a koy denc mm. yow nekk nga nga nekk mel ni Tom and Jerry <laughs> tey nga daw nii suba nga daw ne gannaaw suba nga jënd lu mu di te yow sa doom yow yaa jur doom doom ja dem ba gis ku ko neex lan mooy sa wareef waaw Eva ko doom jële te yàlla ta Eva Eva nag dana am ma ñëw baan danga nga te téye xale bu yaru da nga téye téye xale bu yara mm. dikku li may wax bu la yàlla defee nga nekk xale bu yara dikku da nga koy bàyyeeg àdduna yàgg yàgg bësam dana ñëw. bu ci bu kenn jéem lenn ci kenn. ndax yàllaa fi ne. Eva dañu ah. nekk ci société boo xam ne. sa jabar est un délit. malheureusement man maa la déggul. dañoo nekk ci société boo xam ni nga teral sa jabar délit la. ci yàlla. ñu wax la ko. boo ko defee wutal nga ko noonu. voilà. tey jii soo jëndee ah bisimilah rahmaani rahiim dama ne dama ñu jaayee oto yi baax nga jënd oto bu baax. waaw indil ko sa jabar ndax da ko kontaan ci moom. xoolal sa famille ñu wax ko ca kaw ak ñu bañ ko wax ca kaw ñu ngay mun mu mais sori na papa baan wutalal sa sa jabar ñaari jànk po am nga dañ naan anamee lu muy def ci kër gi waaw te te nit sëyu bànjul ci dëkk kat yi <laughs> jox bale kër a kor ama loolu tax ma ne la <laughs> waaw da ngay sa sa yaay day fiir doom ji yaay day fiiree doomam bu góor du ñëpp nag quoi wax dëgg yàlla du ñëpp du ñëpp koy ñoo koy def ba si yenn yi soo ko defalee sa jabar sa yaay yi ak sa sœur yi am na ci ñoo xam dañ ciy xaw a siisu. Mm-hmm. ñu wax la ko ak ñu bañ la ko wax. Mm-hmm. lii nag pour xam lii xew ci biir kër gi sa yaay mën na wut jànq daal di woo sa jabar ah jële kii kii de baax na moom nangam ak nangam sa jeeg ba ruus ruus gorom wala mu defe ni gorom da koo bëgg lu baax rek mm-hmm. ba jël ko fekk jànq ba loolu leen xëy suba def ba ngoon jot maire baa ngi koy jot en direct oh. lépp. soo jënd des fois nga jëndal sa am na góor ñoo xam suñu jëndalee dara seen jabar dañ koy nëbbu. baan est-ce que xam nga nit a amul seetlu. waaw. nit moo amul seetlu. Ah. li may wax nag buñ jógee fii ku ci nekk na xool autour de wi hmm. wala autour d'elle. ni nga téye doomu jàmbur yi. Hmm. na nga leen téye loolu doo ngay xew sa kër. Hmm. kii c'est ma belle-fille. ma wastu ci àq. nigal ma téye ko sa doom. faaw macha allah bu demee feneen ñu téye ko téye bu rafet. Oh. Mhm. léeg nga téye nit téye boo xam ne yow ci sa bopp da ngay tëdd nelaw xam ne bu la dee bertoon ah yaa ngee ñaan yàlla balaa moo ñëw nga dem balu kii ak ah, mhm. xaw ma lu ko fi jar gis nga li ngay waxtaanee nii réalité la boo xam ni dafa am <laughs> da gis ci ñun jigéen coro ma dikk foofu ba tey ñooñu ñooy téye jànk yi yenn xeetu jànk euh, téye nekk wax ngeen ko te lu am la Euh, dafa am jànk yoo xam ne loo leen téye téye téye ñu am seen jikko bopp. bien doomu aadama yu nit mënta changer mais am ñoo xam ne boo leen téyee ñu baax. daf ci am ñoo xam ne coro bu ñuy téye nit ba ci doom bi nga xam ne dafa ñëw sëy si seen biir kër xeetu téye ba man rus naa ko wax ci télé. duñ ko jox cër duñ ko hormal duñ ko toppatoo bu doon seen sago toujours xale ba day dëkk ti ji ki jaax gis nga nit day def dara coro man damay ne da nga war a interroger wu est-ce que wér nga. Uh-huh. parce que doomu aadama bi li ñu koy li ñu koy doyee mooy xeetu baax baax moo tax li ñu ko wax doyul sa njub sa sa sa waaw droiture sa baax nga nga nga sekk nit ki jaarale ko yoon a perfection amul mais nañu nañu jéem bu nu jéemee rek mu ñëw. Hmm. doy baax ah, voilà c'est que nag jànq yi nag ñoo war a bañ loolu. du ma nangu ñu muy utiliser pour yëngal këru jàmbur. te malheureusement am na ñu baree bari jànq yu bari yoo xam ne dañ leen di utiliser di yëngal kër jàmbur moo xam yaayu ku góor kee ko def. moo xam yaay ku jigéen kee moo ko def moo xam sa wujj moo ko def moo xam sa njëkkee moo ko def. dëkkandoo famille dëkkandoo famille ñi ngi seetaan sa benn xarit dina la gis ñee la iñaale wu la iñaale sa sey bi te doo ko xam mu jël jànq jox la dugal ko sa biir kër yëngal sa kër tas sa sey sëy quelque temps après nga gis sa copine boobu di sëy ak sa jëkkër ñaata ji jigéen ñoo fi nekk seen copine yi euh, seen jëkkër yi takk seen copine yi ngay tëbaka dal ah. ngay tëbaka dal fekk Sénégal gi tam waaw a fee ñaata nit mbaa du ñu gunge la ne la tasal fekk ndekete yoo boo tasee ñoo koy lay seen mbokk bu gën a jege waxoon naa la fii nga def tem xarit góor ak jigéen ak xarit jigéen ak jigéen ak xarit góor ak góor waxoon naa la ko fi di il faut nga def ko waree parce que tey jii sa xarit sa jëkkër takk ko mais takk bi man en tant que man góor garaawlu ma ko mais avant takk bi avant takk bi naka lan moo xew sax xarit bii ñëw ci biir kër mais arrière ci ginnaaw nga xool la ngeen daan seq jànq yaa jigéen a ngi fii ci kaw wala di di fanaanoog dra boo xam ne jëkkëram a ko jënd si wala ay am ay ay ay ay meuble yoo xam ne jëkkëram a ko indi ci kër gi fekk boobu moroomu ak benn xaritam a ko jënd jox jëkkëram jigéen a ngénte ngénte jouru ngénteem yére yamu sol yëpp ba di copinam moo ko jënd moo ko jëndi woon maanaam jëkkër sa jëkkër moo jël xaalis jox ko sa copine mu dem lu leen da ciy am waaw lu leen fayam léegi nag jànq bi ci biir kër am na ci jànq yoo xam dañuy xam li xew dañoo ñëw mission wala ñu nekk ci biir kër gi xam ne xew noppi. xam nga liñ doon wax naan su taximaan doon wax àdduna bi tas. su tey su chauffeur yi si doon wax àddina bi tas su jànq yi am na jànq yoo yoo xam suñu doon wax dëkk bi am na gardien xam ne suñu doon wax dëkk yooyu moo fi am dafa am métier yoo xam ne soo ko amee comme ni ko soxna si waxee da ngay am da ngay am da ngay am bàmmeelu biir bàmmeelu biir du lépp ngay wax parce que yow li ngay nettali am na lu xew seen kër ba nga fa nga jóge yow doo ko nettali te maman est xam nga ni waaw waaw am na xale yu góor yoo xamante ni mm. euh, léegi màgg nañu mais ñoom ils ont été victimes de viol te seen ay jànk ñoo leen ko doon def. waaw dëgg la dëgg la. mu ci euh, c'est-à-dire amul dara lu nit mën a def lu ñu ne sama jànk du ko def. Hmm. kenn mënu ko waat parce que tey bëri na ci ay xale yu nga yu nga yu nga xamante ni euh, bi leen seen jànk yi di violer ay bébé lañu. Hmm. après ci tout le monde est-ce que ay nit nga ko sekkal. parce que xale bu am deux ans trois ans quatre ans euh, ñu baal ñu ci kàddu gi yow boo mënee retrouver plaisir ci moom. wéro euh, euh, je me dis réellement. xëy na sax bu sax ñu ngi lay neex. yaa ko tey loolu <laughs> loolu ah, problème la. Mm. ñaareel bi mooy jànq yi togg. la ñu war a gën a bàyyi xel. parce que sa ñam bi nga xamante ne moom ngay def ci sa biir ki koy togg koo war a xam la. Mm. bu dee munoo togg sa bopp parce que jamono itam dafa dox. Mm. nu ñu toggal seen bopp. boo nga lu ma ci janq yi kat ku ci ne fa muy gérer war nañ koo bàyyi xel. Oh. ndax dangay gis sa karo kër mu cher lool. Eva dikk di la ko nettoyal sotti ci détergent boo xam ne karo ba yàqu na mu coûté la xaalis bu bare nga dem ci xale ya mu yore sa doom yi yorin boo xam ni xale boobu muy màgg nga gis ci moom beneen xeetu jikko boo oh. xam ne yow lii wute na coro dama lay bàyyi nga jël sax ci ligne bi <laughs> ni ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum <laughs> allo. fi waxu leen fi bonjour salaamaaleykum ngeen wax fii du yeewu leen allo feebar bu mel ni bëggul gan allo waaw ganu njaayeen rawatina na ganu njaayeen daal allo salaamaaleykum allo très bien kooku ñu ngi koy nuyu Abdoul Aziz Ndiaye boo gisee beneen njaayeen nga dugal ko coro yaa ngi doon wax waaw balaa maa dem ci ndoy baax voilà donc dama nii euh, que euh, li nga wax am na solo ku nekk ci pàcc boo nekk mm. ñu ñu ñu ñu bàyyi xel mm. mais man jàpp naa ni jànq yi yor suñu doom yi mm. ak jànq yi togg lu ko gën a délicat amul parce que sànq ndoy baan mi nga wax naan jank dina ñëw sa kër fekk dañ ko yebal ki ko yebal bu dee lu ñaaw moo ko tax a jóg ki lay toggal pour mu liggéey la dina yomb pour mu yàq la dina yomb parce que la muy def euh, la mu lay war a def ñu ne ko def ko ci togg bi moom lañ koy jox mu def ko ci moo tax ma ni euh, ginnaaw bu yàlla sàmmee parce que mm. yàlla rek mooy sàmm mm. ginnaaw bu ñu ko ñaanee mu sàmm ñu te doon mm. nañu sutura ba pare xam lan la ñuy ñaan jigéen ñi ànd ak vigilance. tout parce que il le faut maintenant waxoon nañ ko sànq dinañ ko dinaa dinaa ko waxaat léegi rek ñu ngi may message naan ma bu ñuy fay jànk yi on prend pas en charge du ñu bàyyi xel seen ay frais médicaux. yenn imprévu ñoom yu ñu mën a am ak yeneen ak yeneen. moo tax foog ñu xoolaat itamit nekkinu jànk yi ci biir kër gi ak payoor gi parce que tey am na ñu doylu ñoo xamante ne wallaahi bu ñu leen fayoon lu faj seen soxla. du ñu wut daal kenn jëlal kii ci ligne bi allo. allo allo. aywa coono waaw donc euh, ay aspect la yu important yoo xamante ne tey pour ñu régler jafe-jafe jànk yi il faut ku nekk nga def ci loxo man ma def loxo yow nga def parce que ku nekk ci ñun mm-hmm. peu importe âge boo am mm-hmm. xëj na kilifa nga ci sa biir kër gi nga nekk xëj na bu dee benn jànk am nga ko fa di ko fay donc ñun ñëpp buñ ci defee loxo képp kuy ñëw di liggéey si ci kër nga xam ni ñoom ak ñun ñi leen di fey ñoo yem képp parce que ñun tam dañuy xëy bàyyi suñu kër ñëw liggéey si encore une fois ay jànk lañu mm-hmm. fi nga xamante ne fa la ñuy liggéeyee defee rek pour man ku nekk di nga trouver sa compte ci secteur bi parce que métier la boo xam ne ñun mënuñu dem bàyyi leen ñoom duñu dem bàyyi ñu parce que bu ñu demee itamit ñoom la bàyyi macha euh, balaa ma lay jox kàddu gi ñu félicité itam xale yi nga xam ne université la ñu nekk ñi nga xam ne ay nunu lañu ñu ñeneen ñi ñu ngi def ménage pour rek mën na jël seen bopp en charge moo dàq loo gis li ñu naan li woykat ba naan nga nga am sa soxla làmb sa poche euh, génnee ca poche ba daal di ko daal di ko faj kooku jar liggéey ba dee. Mm. wallaay subaa incha allah lépp dana neex ndoy ban bisimilah. Eva dem tamit damay wax sama mbokku góor yi ñi nga xam ni sax maa leen féete mag tuuti da ngay gis euh, benn jeune boo xam ni salaire am ndeysaan matul sax cent cinquante mille. waaw. mu takk jabar loué war a fay location ba pare jabaram wutloo ko jànq waaw mu faible ba nangu ko. faiblesse laa ko mën a wooyee parce que man mënuma yenn yor yenn salaire yi. luwee ba pare nga may def loolu ma mënul. weer wi dee nga war a fay janq su fekkee benn doom nga am wala ñaari doom su fekkee da nga koy fayal jàng lekk ñëwagul naan ñëwagul da dara ñëwagul ak pare nga jëlal sa jabar jànq ci biir kër gi nga war koo fay même su dee vingt cinq mille. allo oui. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. ajaratu bisimilah ñu ngi lay déglu. allo